mais tu vas aussi accepter que ñun notre configuration sociale dafa différente ñun même bu ñu amee une certaine adversité mun nañu retrouver wu ci yenn problème yi ñaata yoon nga fi gis na ma yàlla baal benn dëj am politicien yi. non mais ci biir campagne la non whatever mun na mun lecture yi mun na bëri de. mun na am lecture nga jàpp ne c'est une lecture politicienne. keneen jàpp ne c'est une lecture sociale man j'ai envie d'avoir une bonne foi. Ah. pour me dire que. que que c'est c'est dans le cadre des relations yu ñu am. xam nga dafa sori. <laughs> waaw et man foofu laa jàpp quoi autre chose pour man li nga wax moo am solo c'est-à-dire que aujourd'hui constat gis nga instant bi nii y' aucun candidat pour man qui peut gagner au premier tour cette élection là. loolu nga jàpp non loolu laa jàpp et loolu tout tout on parlait tout à l'heure de sondage etc mais toutes les tendances montent montent vers mais sondage yi so ñi sondé dañu kenn moo leen xam. exactement moo demee am na sax ay sondage yu fi génnee. société boobu génne ni sondage yi daf. non mais mais comme li la doyen wax tout à l'heure c'est à dire que ku ci nekk <laughs> te sondage yooyu noonu ah je le dis devant je le dis devant Ndiaye sondage yooyu mën nañ ko déconstruire scientifiquement c'est-à-dire non mën nañ ko dé c'est-à-dire amul benn sondage bu ñu fiy teg fii non dégg amul sondage bu ñu fiy teg fii nii te kenn mënu ko déconstruire xam nga parce que la vérité sortira des urnes c'est ça la vérité et ensemble tendance yi ñu am ak configuration bu ñuy gis parce que tam noonu sànq am na lu am solo campagne c'est deux choses c'est de l'animation mais aussi c'est un débat mais aussi engouement bi gars yi am mais c'est la vérité engouement boobu aussi ça peut xam nga xam nga les précédentes élections yi am comme yaa ko wax c'est-à-dire euh, élections locales yi les gens disaient que c'est la majorité qui va gagner Dakar n'est-ce pas. ñëwul gagner Dakar. parce que parallèlement on a vu aussi on vu un engouement de l'opposition c'est-à-dire que c'est pas la une des titres qui va gagner les élections mais am na aspect boo leen fàtte. mooy contexte. day définir aussi élection. absolument élection dina am ci moment boo xam te ni no vraiment. ki yoroon nguur gi ak clam ils sont mal mal barrés. parce que contexte boobu. mais contexte boobu rombaguñ ko te élection yi ci contexte boobu. mais contexte boobu dafa continuer njëgu soble yokk rek mën na daaneel gouvernement. mais exactement. essence bi gis nañ fi gis nañ fi Soudan njëgu mburu rek créé na fa la mu fa créé. yokku njëgu mburu depuis plusieurs donc euh... depuis 2019 pour man on est dans une campagne électorale continue. Oui. depuis 2019 oui. on a des difficultés au plan social. Mhm. yoo xam ne réglé guñ leen ba mhm. léegi nii. Mhm. et loolu aussi ce sont des ennemis profonds. contre gis nga le front social bu élection jub see ni muy ni muy nekk en ébullition mais gouvernement bi tamit day fexe gisoo courant bi bañ ci waxee fexe na tempéré njëgu lii mu tempéré da koy jiima day créer benn académie c'est de bonne en attendant ñu romb fii moo lu mu ko jaral nag da koy jaral mais c'est une patate chaude que tu refiles à ton successeur mais si, mais, mais si tu reviens voilà. tu sauras que am naa temps bu kii donc damay remettre bon à... si jamais tu reviens moi j'insiste pour man cette élection là est une élection boo xam ne personne n'a le droit s'il si si si respecte les Sénégalais de dans les yeux de nous je vais gagner au premier tour Hmm. Voilà sincèrement il faut arrêter de vraiment de, de jouer avec les loolu mën na nekk manque de respect